ku ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci bile jamono. Seneinfo.net Seneinfo International jërë ngeen jëf jàmm ak contentement ba tey di leen dalalaat ci seen yoor yooru Seneinfo ma ànd ci ak sama nattaango bii di boxing ku mën def ñu juuf waaye comme nuyoo ñu di ñëw ak yenn ci xibaaru yoor yooru Seneinfo. commencé man lay nuyu di nuyu itam mbokku internet yi nga xam ne ñu ñuy xel saa su ne suñu différentes plateformes yi muy suñu site bi seneinfo point net suñu chaîne YouTube Seneinfo International ak it suñu plateforme réseaux sociaux yi kon demal mbégte bu baax rek eh, di leen eh, diktalaat yor yoru Seneinfo waaw jërëjëf euh, Bour Sine tey nag comme ni ñu koy defee saa su nekk rek dinañuy wax yenn si ñaari parti bu su njëkk nag mooy xibaar yi ñuy traité deuxième partie bi nag am ay commentaire yu am solo yoo xamante ne nii Bour Sine dina si ñëw ak yenn li ñuy njëkk traité si euh, information yi nag mooy partisan ak xaritu avocat bii di maître El Hadj Diouf démb amaloon nañu ab conférence de presse am ay kàddu yu ñu fa yëkkati ñëw tamit si affaire Ousmane Sonko. ak Adji Sarr ñoom tamit seen dossier bi am na lu ci bees ma tey ñu ñëw ak yenn si meeting bu nga xamante ne ni Ousmane Sonko waraloon naka amal ca Mbàkke si àjjuma bi ñu jugee te ñu refusé woon ko muy 65 partisans yi nga xam ne këri woon nañ leen si loolu tamit dinañ si ñëw ak yenn daal di ñëw si soldats sénégalais yi nga xam ni ñoom tamit yónni nañ leen fële ca Turquie ngeen ñu yóbbu. ngir ñu indi fa ab euh, ndimbal ñu jeexalee ko ba tey ak athlète bi nga xamante ne ni euh, na àdduna ni ki démb kii di kenn ndooy mu nekk xibaar bu diis euh, torop bu ñu jeexalee yooyu nag mu bàyyi leen ak deuxième partie bi kii di Buur Sine ñëw si ak yenn si ay jàngat yu am solo Buur si xam naa dañuy njëkkee rek si avocat bi di maître El nga xam ne démb ay xaritam ak ay jegeñaaleem euh, amoon nañu démb conférence de presse doon wax lu jëm si moom ngir euh, suspension bi nga xamante ni def nañ ko si ordre des avocats. waaw soxna Sène comme ni nga ko waxee euh, maître El Hadji muy nag avocat boo xam ne yaakaar naa kenn dootu ko présenté. Mhm. ci Sénégal mu dippee boppam askan wi moom xam nga comme ni nga ko waxee. l'ordre euh, des avocats du Sénégal euh, dañ ko suspendre gannaaw nag euh, bii ne daal dafa def li ñuy faute lourde maanaam ñu bëri ko ci dossier ko ci def kon moom moo tax ba ñu amal li ni moom sax li nga xam ne moom mooy conseil bu jury bu conseil formé avocat boobu kon war a àddu ci mbiram gannaaw loolu bu amee nag comme ni ko waxee démb moom sax lañ am solo ne mooy amal contrat de presse bi finalement dañoo gis ne kon ay jegeñaaleem ak i naataangoom mu am sax ay avocats si bokk ñoom ñoo def euh, conférence de de bi ñoom nag nee nañ jàpp ne euh, kii di Maître Diouf def na dara loo xam ne rek kon war na tax ñu koy yóbbu ci kanamu euh, jury boobu bu conseil bu ordre des avocats ñoom daal loolu la ñu jàpp ñu ne nag dañoo sax yaakaar ne kon. mbir mi daal ay mbir politique euh, da cee lalu ñoom la leen jàpp jàppale ñu daal kon état yu deful dara war a tax ñëpp bokkoon ci euh, boobule jury bu conseil euh, de l'ordre des avocats ñu gis naa kon mbirum politique la ba sax tax ba kii Me El Hadji Diouf mu bañ bokk ci procès bi nga xam ne kon war na am ci diggante Ousmane Sonko ak ak kii di ay saako daal loolu lañu euh, jàpp foofu it beneen euh, peut être beneen bi ci war a souligner it mooy euh, journée boobu nga xam ne kon moom moo war a ba ñu xam kon ci suspension boobu ki nga xam ne moom mooy Maître Bamba Cissé bokk ci pôle d'avocat ñu ne daal ñaari avocat yoo xam ne kon dañoo bokk ci pôle d'avocat bu Ousmane Sonko muy ba Bamba Cissé Thiala ñooñu bokk ci ñoo xam ne tam ñoo war a jël décision bi nga xam ne kon euh, daal euh, mooy wax kon ëllëg Me El Hadji Diouf ci li nga xam ne moom mooy euh, boobule suspension ñenn nag ñott ne mbirum conflit d'intérêt na caa am ndax bi nga xamee ne kon maître Bamba Cissé moom mooy avocat crédit Adji Sarr euh, peut-être conflit d'intérêt euh, mën na am ci boobule mbir fi mu ne daal kon loolu lañ si mën a euh, jàppagum en attendant kon ñu dem ci boobule jury ba xam lan lañ kon décidé daal ci mbirum Maître El Hadji Diouf soxna Seck. waaw boobu si na jërëjëf si yaatal bi ba tey rek ñu dem si mbiru Ousmane Sonko ak kii di Adji Sarr Ousmane Sonko rek dafa saisiroon chambre d'accusation ba chambre boobule ne tey la ci war a prononcé effectivement xam nga bi ñu renvoyé mbir mi euh, chambre criminelle ngir ñu attee ko fa ñi nga xam ne ñoom ñooy ay avocat yu Ousmane Sonko ak ñi ci woon biñ ci àndulee nag loolu dafa tax ba ñu saisir chambre d'accusation ndax daal ñoom nee gisuñ lu war a tax euh, ay firnde li war a tax kon euh, ñu jël bile dossier yóbbu ko euh, chambre d'accusation pour atte ko fa gannaaw bi amalee loolu nag kon ñëwoon nañ ko bésu bu tey joxoon daal chambre d'accusation ci la a kon ci boobule euh, mbir euh, kon après peut-être ci kanam dinañ xam euh, ana naka lay mujjee wante nag lañ ca demee ko nag mooy audience boobu ki nga xam ne moom mooy Maître El Hadji Diouf di avocat bu Adji Sarr ñoom li ko waral mooy suspension bi nga xam ne kon am na ci moom soxna Sène. Mhm. waaw Buur Sine ba tey rek ñu continuer ak manifestation nga xamante ne amaloon nañ ko. ñi ki euh, aljuma bi ñu jógee euh, fële ca Mbàkke si manifestation boobu nag dañ fa téye woon lu toll ci 65 membres yi nga xamante ne nii ay partisans Pastef lañu si loolu tamit kii di Serigne Assane Mbacke si la bokkoon ñoom nag ginnaaw bi ñu leen defee de démb ci altine bi tey nag la ñu war a jàkkaarloo ak kii di juge bi. dëgg la soo asel ñu ngi toll ci soixante cinq ñoo xam ne nag kon ci manifestation muy mitig bi ñu interdiroon ca Mbàkke ak coow la ca mujjee am ca lañ leen tegoon loxo bokk na ci ñu ko waxee léegi Serigne Assane Mbàkke muy responsable kon bu Pastef foofale ca Touba gannaaw bi am na fu départe nag bésu tey bi kon daal lañ leen war a présenté ki nga xam ne moom mooy attekat bi foofale ca euh, tribunal bu euh, Diourbel euh, soxna sa tribunal de grande instance kon bu Diourbel foofu lañ leen di war a kon tey ci mbir moom xam ne kon tegal nañ leen si loxo ci li ma ko waxee rek ci manifestation yi nga xam ne kon euh, nit tàngoor na ba am ay yàqu-yàqu yu bëri nga xam ne euh, amoon na si ba suba euh, keroog ajjuma ci loolu sax waa passé xam nga déposé waat nañ beneen demande bi jëm kon vendredi 24 ñaari mbir yooyu nag kon fi mu nekk nii ak jugement bi yëpp ñu ngi xaarandi ba xam ana naka la wàññi di mujjee ci gëtam waa ba tey rek ñu wax ci suñu soldat yi nga xam ne lu metti li dal waa Turquie ak Syrie ñu ngi démb nag yónnee nañ fa ay soldat yoo xam ne dinañ dem apporter ji seeni ndimbal ci boobu lee réew. waaw njiitu réew Macky Sall nag euh, moom moo defoon annonce bi euh, ay bés bi ñu génn kon waxoon ne nag euh, réewum Sénégal dinañu amal seen kéem kattan ndimbal bi nga xam ne kon dinañ ko yóbbul waa Turquie ci jamono joo xam ne nag. yëngu-yëngu suuf moo fa amoon muy tremblement de terre ba fi nekk nii sax ñu ngi naan li ca faatu ëpp na 35000 personnes yoo xam ne kon ay nit loru si boobu la mbir loolu bokk na ñi nga xam ne dañ caa amee ay gaañu gaañu ak nag ñi nga xam ne rek fi nekk nii moom amuñu am amaguñu fi ñu dëkk wala boog seen i euh, bagage yàqu na ak yooyu ay millions nit lañ. loolu nag taxoon ba Sénégal comme ni wax léegi kenn kattanam ñu mën dina euh, ko def muy nag euh, ay euh, sapeur pompier yoo xam ne kon quitté nañu quitté nañu fi nga xam ne moom mooy euh, Ndakaaru euh, dem kon fële ca euh, Turquie ngir nag bokk ci la nga xam ne mooy opération sauvetage ya ki nga xam ne sax moom mooy ambassadrice bu Turquie fii ci Ndakaaru teewoon na seen départ foofule ca kon aéroport bu Blaise Diagne bu Diass gannaaw it soldat yooyu nga xam ne dinañ dem Sénégal jël na lu ci six cent millions de francs CFA ngir jàppale kon réew Turquie nga xam ne fi nekk ñun soxla nañ ndimbal lool ñun Turquie ak Syrie Turquie nag ñoo ci gën a loru nekk nii nag soxla nañ ndimbal mu fay jógee di fa dem Sénégal xool ne war nañ mën a bokk ci élan de boobu seen kéem kattan ñu euh, def li ñu mel ñu koy euh, rafetlu euh, soxna askan waaw jërëjëf Bour Sine ñu àddu jëm si mbirum sport kii di kenn ndooy di xibaar bu naqari bu ñu yeewoo moom nag daana di ñàkk bakkanam ginnaaw mu tëddee feebar lu toll ci ñaari at euh, moom nag ay atam ñu toll ci 44 ans démb nag la daal di génnee àdduna. waaw soxna Assane xibaar bu diis na muy kenn mu nekkoon nag euh, athlète euh, sénégalaise nekkoon spécialiste bu triple saut ak saut en longueur génn àdduna gannaaw bi mu amee. ñeent fukki at ak ñeent ñu ngi waxee quarante quatre ans feebar nag tënk nañ ko boobaak euh, léegi ñu xibaar boo xam ne xibaar bu tiis la ndax nekk na koo xam ne moom ràññeeku woon na lool ci wàllu sport euh, muy athlétisme nga xam ne mu ko doon def euh, ba sax jël am cee jot am cee li nga xam ne moom mooy ay raaya am na ko ci lu ci mel ni championnat d' Afrique bu 1999 Euh, ci Sénégal fi ñu njëkk a ràññee ko foofu lañ ko njëkk a moom moom la di Ken Ndoye mi nga xam ne sax nekkoon na ci podium bi amoon médaille d'argent ci li nga xam ne moom mooy longueur ak lii di euh, bronze ci ci tribution bi moom Ken Ndoye moom it nekk na ñaari yoon champion d'Afrique ci li nga xam ne moom mooy tribution ci li nga xam ne kon euh, moom mooy championnat d'Afrique bu 2000 ca Alger équipe 2004 ca Brazzaville nekkoon it bronze bu triple saut ca ci li nga xam ne moom mooy championnat du monde d'athlétisme euh, bi amoon euh, ca Birmingham euh, ca Angleterre ba léegi kenn doy jot na jël sixième ci li nga xam ne moom mooy Jeux olympiques d'Athènes bi amoon ca 2004 wante it lii di triple saut ci championnat du monde. même place ba léegi sixième boobu jël na ko championnat du monde euh, triple saut kon euh, championnat monde dafa ci discipline bi di triple saut ca 2003 ca Paris wante itam élèves kii ba léegi it euh, jëloon na boo bulee place ba léegi moom kenn doy nag am na li nga xam ne moom mooy médaille d'or bu triple saut ci li nga xam ne moom mooy deuxième championnat d'Afrique d'athlétisme bi amoon ci Yaoundé 1996 ba léegi it euh, mu nekk troisième place euh, ci li nga xam ne moom mooy 1998 euh, fii ci Ndakaaru ci Jeux bu amoon na ko fële Johannesburg en Afrique du Sud ba léegi moom kenn nekk na médaillé d'argent ci li nga xam ne moom mooy so en longueur ci championnat d'Afrique bu tennis atum 2022 mu nekk it première ci triple saut ci Jeux africains d'Abuja bi nga xam ne muy amoon ci Nigéria atum 2003 moom daal kenn de ci li ñu mën a jàpp moom mooy euh, def na parcours bu am solo ci li nga xam ne moom mooy athlétisme euh, ci wàllum euh, jigéen ñi fii ci Sénégal Zema Touré ci ñu ngi bokkoon na si loolu sax moo nekkoon dernière compétition internationale am kon jeux Mapto yooyu nga xam ne euh, bokkoon na si moom kenn doy muy boo xam ne nag génération yu na leen marqué na leen man bi nga xam ne affaire athlétisme athlétisme moo bëggoon trop bien ndax moom toog si kanam bi di ko seetaan trône bi yàgg naa ko dégg bu ñu waxoon Sénégal dégg trône kon Sénégal amel nañ ko njëkkal ndax yóbbu na tudd Sénégal ak drapeau Sénégal foo xam ne ni fu kawe ñu koy ñaanal yàlla rek yàlla euh, jéggal ko ay am i bokk seen euh, leeral bi am na solo trop di la jaajëfal bu baax a baax si yaatal gi yéen a ngi woon si seen première partie Yoor Yooru SeneInfo xam naa dama leen di bàyyeel deuxième partie bi ak aussi ñoom benn commentaire bu am solo bu leen di si loolu nag si commentaire yi tey dina waxtaan ak yenn si exploitation gaz ak pétrole bi nga xamante ne ni ñu ngi koy waajal fii ci Sénégal. xam naa fa laay jaaree rek di leen jox dig daje ba suba incha allah buuf si ma bàyyi la ak internetu seneinfo point net seneinfo international jërë ngeen jëf. Restez toujours informés sur Seneinfo xibaar yi wóor te leer ci bile jamono Restez toujours informés sur Seneinfo xibaar yi wóor te leer ne jamono fi la bi tàngee fi xayam xayame xibaar yu war leer ci bile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom yu war leer ci bile jamono